asalaamaaleykum suñu mbokk internet Dakar People ñu ngi leen di nuyu di leen jëfal tey nag dañoo xëyee tiis ak mbetteel muy génn àdduna Thione Ballago Seck di papay Wally Thione Seck nag nekkoon musicien bu mag compositeur Thione Seck di kàngam ci musique bi muy def ñépp naw ko Thione Seck moomu nag moom lañu xëy ni dafa génn àdduna ñi ngi ñaanal Thione Seck yal na ko yàlla yërëm te Thione Seck kenn dootu ko fàtte ndax lépp lu muy liggéey jàppale woon na ci ndaw yi am na compilation bi mu defoon yàggul dara ndaw yu bari boole na leen ci pour ñu mun a génn jëm ci kaw Thione Seck ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana bett nañu lool nag tey waaye bu jàmm bu yàlla soxlaa jàmm ñàkk ñu ngi leen di jox dig daje ba ci kanam ci yeneeni xibaar